dikkati na siis baa ngay biiju sàll lum ko téye téye siis baa ngay wéy di dag-dagi ànd ak président Macky Sall tribune yéen kaay ne ma déet ayam gi kay na muy jeexee moo neexul moom Sall nga doon xaar ñu naan koon yaa ngi dem sa dem neexuñu yéen kaayub dee média bi waxtu woowu naan président Macky Sall kay mooy dem ak i xupp waaye tam dem ak i jafe-jafe yoo xam ne maar day taali njeextalu ayam gi bari nay problème jafe-jafe ki difficulté tribune yéen kaay naan maan moom président Macky Sall nag bari loo xam ne mi ngi jaamaarloo ak moom war koo laata ay gi gi di jeex cay fégal ga tribune naan man déet l'opposition bi ñoo ko mayul dara fu sàll waxke rek opposition bi daal di suul mbir yi mel ni ay gént ci moom ñu koy tuñ tuñal rawatina ci élection présidentielle yi nga xam ne 2024 la ñu ne déet waaye moom président Macky Sall nag syndicat yi ne ci réew mi mel ni nag cin luy bax amul ruq bu sedd fépp di am dang-dang ci biir réew secteur yi nga xam ne moom président Macky Sall jàppoon na ni wis na ci ndox mu sedd secteur yooyee ma ne la ñoo daal di yëngu ne tulleeg màlle diggante njàng meeg njàngale mi diggante moom ak yoon diggante moom ak njaayum carburant be courant bi moom président Macky Sall ba ci diggam mag baykat yi dara neexul ñu ne déetawaay Sénégal ci boppam daal di muuroo ay chômeur xale yi amuñu xëy tul tul gi ak dañ-dañ gi mel ni tulleeg màlle te foo rek day daal di dëgër tax ba maar day taali mi ngi am ci réew mi l'observateur naan kon fi mu ne kay xale yi ñëpp bëgg génn Sénégal junni mani la junni ci ay passeport yu yees bés bu yàlla sàkk daañu ko defar ayu bés bee rek ñeen fukki junni ci passeport daal di nañ koy séddale fu xale yi jëm fu sénégalais ay jëm tribune yéene ay naan kon xanaa gàddaay rek ndax ay gu mujj gu président Macky Sall gi ci boppam moo neexul xale nag bëgg daar daar fu daw wekk fa seeni i jëmm ba jafe yi ñu dund ci Sénégal duñ ko dund feneen yéen i kaay bi média bi naan kon ku ne la sa ay gi neex na daf lay nax wala it ku ne la sa njeextaluk ay gi neex na lay nax fi mu toll nii njëkk yi na ba maar day taali vox populi naan kon moo ne président Macky Sall bàyyiwul de nee na réew mi du bàyyi ku mu neex toog fi di def la ko neex réew mi ko dijee naan kon moom président Macky Sall kay ci coowal Ousmane Sonko la njëkkee nee amul lenn loo xam ne rëccu na ko ci ñi nga xam ne nag dañoo bëgg fu xat ci nguur gi wala it daal di salfaañe Sénégal ma ne la seen bëgg-bëgg du am ci réew mi ndax yoon mooy wéy di daal di dox ci réew mi vox populi naan moom moom président ma Sall kay ma ngay dal ci kaw Ousmane Sonko naan lépp lu mu dund ci wàllu démocratie lañ ko teg te yoon ci boppam mooy dox ci réewum Sénégal ñi nga xam ni nee ñu dañoo bokk ci parti moom Ousmane Sonko faat ay soxna ngeen jàpp ne Sénégal bu dul woon ab démocratie doonub dictature daañu xëy suba ba di bàyyi moom Ousmane Sonko moomee muy xëy di dagg lu ñaaw ci président te kenn jël ko yéen kaay bi naan man en président Macky daal mer na ma nga naan su neexee ñëpp dar dari ñëw su mettee ñëpp daal di ma koy bàyyee tribune yéen kaay la ma leen waxoon rek de njeexteel ayam gi moo neexul ci moom direct news naan B bu Pastef yéen kaay bi naan man plan B bi nga xam ne musuñu koo nangu mujjee nañ ko te leer na Jomaay Faye la yéen kaay bi naan man waaye Bassirou man la ab mbaay la ndax xam nan ne daan nga xam ne ko ci kaw Basiru mii ak article L57 bu code électoral bi tax na du doon candidat Njaga Sila expert électoral ci yor yor yéen kaay naan ko déet direct naan koon ma yëgli Pastef ma ni la am na ay député ak i maire yoo xam ne saa bu ñu xëyee mën nañu pare ne Guy Marius Sagna bal du tàkk sagar du xeeñ te yéen sax xam ngeen ni juróomi exemplaire fiche parrainage bu ñu jël defuñu ko nii rek ci naxasa kandang am na loo xam ne Pastef ma ngi koy waajal ci suuf bokku na ci ñoom candidature Guy Marius Sagna bi nga xam ne mooy sabab ak bëgg-bëgg bu Ousmane Sonko ko 24 heures yéen a kaay jox kàddu Ndiaga Sylla muy xam leen ni candidature Bassirou Diomaye Faye gi amul lenn lu ci takk suuf ndax Bassirou ci boppam mënta nekk candidat parti bu nu seeyal dëgg la mënta nekk candidat indépendant dëgg la waaye ñaari parti politique yeneen mën nañ ko boot mu taxawal ab coalition daal di dem ak moom ci élection présidentielle yi ndax bu leen fàtte ni moom Bassirou ba tey yoon tëju ko définitivement ci Sénégal koon mën naa doon candidat batale bu Ousmane Sonko léeg fa yéene kaay naan maan candidat batale président Macky Sall day mooy Amadou Ba waaye daanaka Amadou du deful dindiwul sàll ngaari lam tooro bur gédee wooye di jiite gém bi Walf Quotidien naan président Macky Sall kay mani la ma ngay dogot dogotee ak di wéy di xër Amadou Ba les fa yéene kaay naan man sabab gi mooy tournée économique bu mujjee joge foofu moom kenn waxatul Amadou Amadou nekk candidat boo xam ne waxul deful dindiwul sàll sol boot botti nag demal boppam ce xeex ba ca guerre ba te loolee mani la jàppalewul Amadou Ba de ndax jàpp nañ ni bu sàll taxawee moom Amadou moom bokkatul xam ni nag yow ci boppam dan lay boot la bàyyee ak ñun ndax mën nga ba roganti ñu ndax turne bii ñu def ñaari weer laataa ubbite campagne bi soo moytuwul nag mu doon jafe-jafe ci mouvance présidentielle yi moom Sall ca tournée ya ma ngay digee Sall ma ngay dalloo Sall ma ngay taxawal ay projet yoo xam ne yu rëy la Amadou nag kon bu ñëwee moom lu muy wax askan wi loo xam ne Sall waxu ko ba nuppi wala it mu jaar fa président Macky Sall jaaroon rek l'évidence naan maan jaar jaaru Anta Babacar Ngom ca Casamance mi ngi gazé nañ ko moom Anta Babacar Ngom waaye terewul wax nay dëggam ma nga naan daanaka dara dara moo amul ci Casamance gii ñàkk nag ñu taxawal ab plan spécial ngir daal di joyanti Casamance diggante aéroport international te Ziguinchor ay aérodrome yoo xam ne méngoo naag jamono diggante Cap Skirring ak Sédhiou waaye tam ca Kolda autoroute boo xam ne dina dox diggante Ziguinchor ak Tambacounda waaye tam ab pom ca Sédhiou saxaar diggante Kolda ak Tambacounda ak la ko jiitu di jàmm joo xam ne dana sax dàkk dal di am ca Casamance diggante joyanti tourisme taxawal wér gu yaram njàng meeg njàngale mi mën a ñoŋ ci foofee waaye tam xarala yu yees di koy Casamance ci boppam lenn lenn moo faamul amul ca la nga xam ne nag dund na ko ci wàllug lacrymogène anta naan Khalifa Babacar Sall dund na ko Bougane Gueye Dany dund na ko Malick Gakou dund na ko ak ñeneen ci opposition bi fu Sall ki njabootam jàll moo baax keneen ku jàll ñu daal di lay nag tàmm nañ ko libération yéen kaay naan man situation ba am ca poste waxuñu ko ñoom liggéeykat yi ma la ñu ngi daal di sëngeem union nationale bu syndicat otonom bu Sénégal daal di xamle ni bu nu fayul waa poste gi ab drame social dina am ndax poste ci boppam lëj na lëj goo xam Moustapha Ba ministre ba ngay xam le ni léegi mu daal di saafarawu tribune yéen a kaay naan kon aide à la presse bi a kaay naan maan Moussa Bokar Thiam ma ngay xupp ma nga naan ma ni la journalisme ku ko deful ci réew mi yet wi dal sa waxtu woowu moom président Macky Sall ma ngay layel continent ba ca Berlin ngir ñu jox leen gëdd ak ci réew mi Dakar Times naan maan digg diggante France ak Afrique léegi nag teex teex may ree am ci ndax lonkooti nañ turbine yéene kaay naan man ci fanweer ak ñeenteelu anniversaire bu convention bu mbootaayu xeet yi nga xam ne sàmm àq ak yelleefu tuut tànk yi moom moo ko tax a jóg jéggi bi nga xam ni mooy ñoŋal te it sàmm àq ak yelleefu xale yi waaye tam sàmmuteefu xale yooyee daal dinay visité yenn ci ay bërëb yo xam ne fa la ñuy jàngee waaye tam di tàggat xale yi nga xam ne dañoo amee laago sàmm leen ñoŋal leen ci Sénégal gi ab wareef la ndax nag société bi ci boppam moo war a aar tuut yi rawatina ñoo amee laago ndax xale yi bu ñu nekkee ci jamono joo xam ne am na jàmmuk dal te xale yooyee amuk laago soxla ko lool mënees naa ñoŋal seenuk ëllëg waaye tam sàmm tuut tànk yi mën naa tax ab réew daal di développé xalaat xale yi ak seenuk ëllëg jégi ne mooy xalaat ëllëg goo xam ne réew mi dana ca nekk te mu baax lool l'observateur naan man boobu def ko du ñaawtee fi seexlootuñu daal dina ñuy dal ci kaw sëriñ Moustapha Maodo Sy si da baax fii ci xaalis ñu yóbbu ko fa million ci ay yóbbu ko dig daal dinay jàpp coursier ba waaye tam ñaari gardien libération yéen naan man ca gàmmu ga la ñëw xool bërëb ba nattu ko nattaat ko daal di def seenu ñaawteef moom libération naan man ca na ñaari xale yi kenn ki am ñeenti at kenn ki juróom ci ay at góor ak jigéen lañu réer ñu leen di wër ndekete faatu nan bu yàgg ba ne ca àll ba yére ya ñu soloon ak lam ya ñu takkoon la ñu xàmmee ni ñaari xale yii ñoo nekk néew yi tëdd abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor mi ak ci bitim réew